asalaamaaleykum euh, sali avi internet seen stv mbokk yi xarit yi nga xamante ni yéen ñuy suivre suñu seen youtube bi ñuy tuddee seen stv amati nañ bëgte ak kontaante ànd ak yéen ci allo professeur euh, tey nag alo professeur dafay ñëw rek si actualité bi waa mais ñun Sénégal tey dañuy wax ni xale yi ñoo yaridi ko wala mag yi ñoo yaridi ko mais tey bu ñu demee ba mag ay magum jëmm tey làkk nañ at yu bëri taxaw biir Sénégal naan diw moo ne ma naa tëdd ak moom su ma tëddee moom mu jox ma nangam ci ay millions mais nga foog ni société bi moom mënul dépasser foofu société bi war na mën a dépasser foofu mais ana responsabilité bu ñu fàtte ni yàlla daf ñu bind indi ñu ci kaw suuf pour ñu am suñu responsabilité àdduna euh, bi du bon kese àdduna bi du bon kese mais dafa mel ni Sénégal ni muy dundee ay pornographique lay dundee Sénégal dafa mel ni ni muy dundee ah nit ñi daal fi mu toll nii affaireu sexe rek sexe sexe rek yeneen bi nee na nit bàyyi ma gis nga bu dee sa soxna sax da nga nekk ak moom li leen boole yéen ñaar sexe la rek tëdd lal ba cub nee na yéen a bàyyi ma yéen a yem waaye la ca gën a am solo mu ne wa min ayaati an xalaqa lakum min anfusikum aswaajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawadda wa rahma inna fi zalika la ayatin li xawmin yatafakkurun yenn ci kawtee fi la def peer mu nekk góor ak jigéen mu ne ngir ngeen dal li taskunu ilayha mais góor yoo xamante ni jigéen ñoo xamante ni du sa jëkkër aussi tamit yow du sa jabar ngeen toog di yàkkante der yenent tamit nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit yàlla dina la suturaal nit sutura dafa mel ni sax dafa amatul Sénégal yenn yi dafa ñaaw yenn yi bës jaru ko yenn yi tur jaru ko yenn yi alal jaru ko te Sénégal fi mu toll nii lu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw ñaaw loo gis mbiru alal la mbiru alal ñii di saagante fii ndax àdduna ñii di yàkkante der fii ngir àdduna nañu xoolaat suñu bopp société Sénégal xale yi si boppam dafa mel ni ñoom yaru nañ waaye mag ñi ñoo yare di ko loolu moo am ci biir société te loolu nekkul woon loo xamante ni waroon na am de xale mooy yar xale mag nag dafa war fexe ba tette xale ah xale bi mën a gis ci moom kay bu baax parce que dañu wax l'homme honore celui qui honore les autres ki ñuy respecté mooy ki jox boppam cër nañu xoolaat suñu bopp lii am Sénégal aajuwul fenn tegul fenn lenn li bës jaru ko lenn li tur jaru ko Sénégal dafa mel ni daal qualité mënatu fee am nañu xoolaat suñu bopp nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax nañu xoolaat suñu bopp mbir yi ñaaw na foo ko wekk weesu na fa ñaawee na fu ne moo xam fu ñi ñu jiite la moo xam ñu ñu yaakaar la mais daal mbir yi ñaawee na fu ne